xëy. mais mais mais mais adduna boobu est-ce que dugg fa eh, metti ah, est-ce que amul incohérence ñun buñ déggee ne hmm. euh, ñii ngi xiif comme ni nga ko waxee ñii ngi ñàkkam xëy te chaque jour ñu dégg ay milliards ay milliards milliards waaw mais milliards yooyu lan la déet déet milliards yooyu fu ñu toog fu ñu dem milliards yooyu wàccuñu biir Pikine bi wàccuñu wàccuñu Caaroy de wàccuñu Yëmbal hmm. wàccuñu Ndar gi milliards yi réew mi am ñi koy ñi koy wax de ci ñoom la yem ñoom la ah. jamono bi ma déggee ni eh, FMI dafa signé nguur gi xaw ma dafa war a joxe lu ëpp junni milliards ma ni tiit leen hmm. ndax FMI moom fu mu joxe xaalis moo di réew moomu mu ngi tàmbali jàk jànkoonteel ak jafe-jafe fay bor ay bor ko topp moo tax FMI jox ko xaalis jox ngir nan lay defaraate koom-koom yi ngir mun a fay borom te nag suñu réew bor yi dafa lonk ba fii bor bon alal boobu di dugg ñëwul ci nit ñi xam nga defar ay infrastructure baax na wante doyul pour nit ñi gis ci seen bopp li tax nga gis sa bopp sa doom jàng nga soo feebaree nga faju nga am foo dëkk nga am xëy ba sa njaboot am xëy lekk bi yomb yooyu su amee di nga ni ah sant naa yàlla tuuti mais mais mais ñun professeur li li li fi énuméré yëpp ma xoolee d'habitude mm-hmm. boo ci toftalee yenn ci ay ay ay ay cause dëkk yi nga xam te ne nii guerre civile am na yooyu noonu bokk na ci li ko indi ñun baaru fa lañ jëm maa ngi ñaan yàlla bu ñu fa agsi parce que yàlla am na as tuuti lu mu ñu may yàlla am na sutura parce que li may réew mi am na ay kilifa yu mag yoo xam ni danañu leen di bàyyi xel danañu leen di déglu am na aussi ay boroom xam-xam ci réew mi yoo xam ni dañu leen xam ci àdduna si suñu waxee aussi yenn saa yi ñu dég ñu déglu leen yooyu yëpp tey mu ngi yëngutu ci réew mi moo tax mun nañu toujours ñaan yàlla que ni mu doon demee démb mu jaaraat pour jàmm dellu si mais mu nekk jàmm ju sax parce que bul fàtte mars deux mille président lu mu ñu waxoon je vous ai compris. déglu naa leen dégg naa xam nga tey ñun ñëpp di xam nañu ni suñu dégloo tamit dégguñu. dégguñu te li amoon lu gën a grave a am. avec donc bu ñetteel. te lépp ci loxoom la teg tegul ci loxo kenn nag. kon ñetteel moom ñetteel mën na ko mënul am. ci loxoom la tegu. parce que loxoom moo ci la tegu loxoom moom moo mun a wax ci digganteem ak yàlla ci su aada yu baax yi fi maam yi bàyyi ko góor du tekki kàddoom moo ñu ni woon du nekkaat candidat moo ñu ni woon d'ailleurs ci réew mi moom moo fas constitution bi de kenn dootul tegale lu ëpp ñaari mandat donc na na na ko wax. askan professeur entre parenthèse professeur li nga génn ci ci ci Macky nguuram moo tax nga nga nga jël position bi ndax ba nga cee nekk est-ce que su ne woon jamono ji yaa ngi fa nekk est-ce que di nga tenir discours bi. Ah, xam nga benn man maa fa génnee sama bopp te ndàquma man j'étais président du conseil d'administration de Petrosen société bi yor pétrole yi ak gaz yi cinq juillet man maa bind ni bay naa donc hmm. kenn jële wu ma fa man maa bind bàyyi naa parce que li ma gis doyuma comme li ma gis doyuma nag defe naa gor mooy loolu gis nga lii doyu la lool ñu la joxoon nga yow nga rëdd sa yoonu bopp d'accord laa def léegi ñu ñëwaat un peu ci fi ma génnoon mooy ci wàllu manifestation yi tout le temps dañuy dégg ga surtout yéen ñi nekk ci opposition bi ngeen di wax naan président président président mais su fekkente ne responsabilité yi c'est partagé lan moo ci war a nekk yi tamit responsabilité opposition xam nga ñun suñu suñu parti dañu am wax naa la ko sànq ñetti jiñ waaw benn bi mooy jikko yi mhm. parce que réew mi jikko yi dañu yàqu te ñëpp léegi koo wax mu ne la loolu donc léegi ñëpp xam nañu ko amul werante war nañ ko changer ci kaw nag bi ci suuf ñaareel bi mooy xam-xam parce que réew mu dul jëfandikoo xam-xamam du dem du dem loolu dëgg ñetteel bi mooy jàmm ñun duñu woote mukk mukk luy indi fitna parce que li ñu gëm li ñu gëm mooy suñu réew en deux mille en deux carte électeur moo tax Ablaye Wade fol en deux mille douze carte électeur moo tax Macky Sall fol ñun gëm nañu ni en deux mille vingt quatre carte électeur mooy fal ki nar a nekk président de la république te maa ngi ñaan yàlla nekk ko mu nekk yàlla ko yàlla def bu neexee borom bi mm-hmm. mais mais mais mais c'est que li tax may may laajte loolu mm-hmm. mooy mooy mooy président dañoo gis ne euh, ni ki vendredi ak samedi opposition bi muy woote waat manifestation mm-hmm. ci jamono joo xam te ne nii euh, réew mi comme ñax boo jëlee almet booy kos boo moytu mu tàkk est-ce que moment bi favorable na tamit pour ñu toog di manifester tamit. xam nga ñii woote waaw xam nga xam nga woote. F24. waaw ci ngeen bokk de ci laa bokk signé naa charte bi. d'accord F24 woote na manifestation jamono jee. Mm-hmm. manifestation bi place de la nation. yàlla def mu déroulé wu. ci jàmm ak salaam. parce que F24 jàmm la woote waaw wootewul leneen lu dul jàmm donc war na su lu mel ni amee ci réew F24 woote yaat feddali li muy laaj te li muy laaj ba léegi moo nekk fii ci sur la table comme on dit koo mun ci wax aussi xam nañu premier point c'est le troisième mandat point bi ci topp mooy libération ñëpp nañu bàyyi ñëpp ñi nga xam ne dañu leen tëj ngir politique ak ngir seen kàddu ñetteel bi nañu régler problème mu élection yi élection yi jaar yoon ba ku bugg a bokk nga bokk te fekk réew mi rek askan bi rek mooy atti nit ñi. mais problème xam nga laaj bi c'est légitime. loolu mais man waxuma légitimité loolu jàmmale xam nga mais tamit ci jamono ñu nekk. jamono ji situation bi tendre. F24 waxul kenn sànni la xeer. waxul kenn tojal lii waxul kenn lakkal li déedéet F24 dafa ne ñëw leen place de la nation ngeen taxaw wone ni lii ngeen bëgg muy ajjuma bi waaw samedi bi ñëw leen ngeen dox ci VDN bi ngeen ni lii ngeen bëgg mais état bi suñu constitution droit de manifester c'est un droit légitime lan la état bi war a def euh, autoriser ko teg des force de l'ordre accompagné comme bële yoon dara du ci génn mais loolu dafa bokk wone ni askan bi lii kat dëgg-dëggam la parce que xam nga manifestation bi amoon keroog ñëpp gis nañu ñi nit ñi ñëwee donc wane na ni lii bëgg bëgg sénégalais yi la te loolu aussi lay manifestation di wane donc F24 mhm. lu pacifique laajul benn yàq laajul benn xuloo laajul benn xeex kon daal faaw manifestation li mu laaj loolu nguur gi nañu jàppale ngir aussi parce que démocratie démocratie ci li ñuy ŋàññ nguur gi démocratie xam nga li nga euh, communiqué bu commis président commission union africaine mhm. mu ngi cey wax nañu bàyyi nit ñi ñu exercer seen droit de manifester parce que droit la c'est vrai que bokk na ci liy motal démocratie que nit am droit manifester xam nga président Ablaye Wade pour te dire moom ni mu gëmee woon loolu moom dem na sax bi jox nit ñi benn benn benn te tegtal secret na wax ni su ngeen su su dara amee daal d'accord takk leen brassard rouge yooyu yëpp parce que sooy jiite ay nit war nga seet lan lañu lan mooy seen état d'esprit il n'est pas démocrate le président en mais mais mais ci manifestation yi ay dee def ci am récemment on a vu la police mu génn def déclaration di wax ci biir daf ñu am ñu ñu rax pire ay étranger lañu ci beneen wàll ay ndaw di ay démenti ne ñoo ñëpp ci ñoom lañ bokk finalement est-ce que loolu du indi réeroo wala du indi sax ñàkk confiance ci diggante ñi nga xam ne FDS yi ak les civils ñu bëgg a manifester. ñun am nañu ay FDS yu xereñ am nañu ay forces de défense et de sécurité yu ñu respecté ci àdduna si parce que fu maintien de la paix am. bare na suñu wooyee ay réewu Afrique Sénégal la ñuy am na sax ay réewu Europe yu maintien de la paix am Sénégal la ñu donc compétence su suñu armée suñu gendarmerie suñu police amul benn werante et c'est important ñu préserver ko parce que suñu réew dafay réew boo xam ni tey li ko wër yépp fitna dugg na fa mbaa fitna bi fës na mbaa fitna bi mu ngi ruumandaat xam nga réew mu mel na Mali réewu jàmm woon te tey soo gisee li fa nekk bëggoo Sénégal mel noonu réew mu mel na Burkina c'est la même chose loolu moo nañu fexe parce que jàmm mooy tax du am infiltration ñoo xam ni ay rek la ñuy wut dugg suñu réew yokk ay bi loolu gouvernement bi dañu wax ni depuis ay we ay at ñu ngi wax force occulte mais xam nga soo waxee ay at force man la première question bi may posé mooy ñi di dee ci manifestation yi mais kan moo leen rey. kan moo leen faat c'est une question. kan moo leen faat ça fait deux ans les dix-sept officiellement morts ci manifestation mars deux mille vingt et un ba léegi mënuñu ñu wax kan moo leen rey les seize officiels yi ñu waxtaan. ñu déclaré ñu déclaré récemment. seize yooyu kan moo leen rey gis nañu ay pick yu weex yuy daw. waaw ñan. gis nañu ay ñu yor ay arme di ci génn yi yan arme la ko jox ay civil hmm. ñooñu ñan lañu. Hmm. man yaakaar naa suñu état bi xereñ na xereñ boo xam mun nañu wax ñan la. Ah, en tout ñu ngi koy xaar te looloo tax ñun ci suñu programme dañu président de la république na jóge ti jiite conseil supérieur de la magistrature parce que confusion boobu nga nekk président di jiite conseil supérieur de la magistrature loolay tax yu bare mu day indépendance bi day jafe mhm. mu am day jafe mu am parce que carrière juge yooyu yëpp sa loxo lay jaar Mm-hmm. nomination yi aussi sa loxo lay jaar mm-hmm. dégg naa bés président di wax moom daal dafa fa toog rek mais lépp lu fa xew magistrat yi ñoo koy def mais mani loolu kay fekkee loolu rek la mm-hmm. bon kay yomb na mu ne léegi magistrat bi gën a gradé gën a yàgg ci grade bi gën a koy na ko jiite comme moom roolam rek mooy toog foofu noonu noonu loolu mooy suñu programme pour que léegi président dootul laal ci mbir yi parce que y a trop de cas yoo xam ne kenn élucidé wu ko et puis yéen aussi journalistes yi waaw laa dama leen di kii tuut da ñu koy laal waaw parce que yéen aussi war ngeen def investigation parce que c'est le rôle des journalistes aussi c'est du journaliste yëpp il y a des journalistes politiques il y a des journalistes d'investigation ñooñu defe naa ni ñooñu aussi war nañu gindi askan bi